jaale ndaran dul sek yaay kati moy lu metti léegi rek ma deg nga way ko way xol waaw way xol la ko way ndax dama wax ni buur du sek way ndoowu la kenn billaahi wallaahi lamb ji ñak nañu ndanan bu mak du sek way ndowul billahi wal kitab dina def ci turu boo turu ci lamb la turu bo xamni bi mara detali yalla nako yàlla yërëm xare ko aljana du sek bu waye ci xalam nga yakarni mom la mën bu waye guitar nga yakarni mom la man bu duggee ci orchestre nga yakarni mom la mom dafa amone magi yalla ci way waye ndoowul ak kenn nday Fatou ndjay dégg nga Doudou way ko legi Demba ne làmb ñàkk na Doudou assalamu alaykum senegal assalamu alaykum wa aduna sax lay wax ndax duru senegal rek ñak ko aduna ko ñak te duru dafa donon monument ba nga xamne ne dafa amone solo ci lamb ji motax tour bu mag dafa dafa dafa ki ci lamb ji day feeñ ci lamb ji dudu di xarit di papa di nijaay bi nga heure bi sa xel dem na ci sama xel di dem na ci mom ndax ci dëj bala ñaari fan yépp ma nga fa mu doonoon sama xarit bala amon lu ko neex rek da way ba yëkëti micro jox ma ne ma awuma ma Sénégal gépp xam ko ñëpp dañ moy woné ma dan la koy dem ba ngeen di interroger munuma wax motax tax len ndax boba dama bet dudu histoire bopam du histoire am kuy néewal doole doomu adama la bañoon ma di ko ñaanal xol bu rafet bi nek ci mom ta xol la yalla fay sayidina Mohamed gi mu bëggoon ba tudde ko ñaari doom yalla nako terul bopam amin lamb ñak dudu sek yaay kat yi demb rek waaye Doudou kooku kooku maa moom ñoo daan ànd depuis xale depuis petit ba ngoom maa moom la woon fu mu mësaan way man maa ko daan aw man Moustapha Diagne waaw si kasak si kasak lañu ñu commencé maa moom ay kasak kooku ñoo daan ànd di kasak lu ne def nañ ko ci àdduna yal na ko yàlla xare àjjana asu nuy naa la fay naa la bu baax lamb démb ñàkk ndaanaan Doudou Seck yaaykat yi waaw ñu ñàkk ku baax nag ñàkk nan ku baax koo xam ne siisul si way koo xam ne bu la gisee day mel ni doom joo jur la dudu yaaykat yi ñun li nu xam ci moom ci lu baax ak lim ñu yaatalee nii duñ def lu dul di ko ñaanal yàlla sunu borom yal na ko yàlla xaare janay fi daw si yal na réccu lu fi daw def lamb démb ñàkk du sekk yaaykat yi waaw ñàkk lu rëy ñàkk monument ñàkk ndaanaan ñàkk ku waaw duudu bu ñuy wax ci moom sunu baay jooju fii la ñuy fanaan ndax root nañu ci moom lu bari particulièrement man aw naa ko kasak aw naa ko mbapat aw naa ko fii ci làmba ji muy sunu baay ju baax yal na yàlla xaare ajjana te mu rëcc lu mu doon def ci àdduna vraiment ñàkk nañ lu rëy teg lu mu mësaana wooy fii yéen a ko tëggal làmb ñàkk waaw maa leen nuyu di la gërëm la sant di la wax ñëpp ñoo ñàkk du ma sa sax askanu làmba dama na askanu senegal ñëpp a ñàkk du sekk ba ku ci nekk seex nga du sekk lu baax ci làmb ñun nag sunu sama yaay bàjjanam la moom la bokk lu bari kon boo ñu laaj ci du sekk nañ ci sawar ñuy wax yàlla na ko yàlla yërëm di weex ku ne rek delloo sa xel ci yàlla parce que dañ ni saa boo xëyee loo xam ne mu ngi lay dàq du la jot xamoo kañ la ak fan la kon fa mu ne yàlla gënal fa mu jógee yàlla ko yàlla yërëm fa mu ne ak ñoo fa fekk ñëpp yàlla def leen jàmm yow nag sa liggéey rafet na trop ci presse bi parce que man xam naa la gis naa la gis naa lañ fay tase nga boole yar boole teggin boole man li ngay def boole dal wane woo réyoo reewoo kon li nga xamante ne ñoo ko ñàkk muy Sénégal yëpp ñu ñàkk ko muy du sec yàlla ko yàlla yërëm te saxal Sénégal ak salam ñu ngi lay gëm sant kontaan